بالله السميع العليم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bis mbokki jullit yi mbokki talibe yi ginaaw bañu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu taala alayhi wa sallam di dellu ci sunu émission émission yu mag ñi wala jaar yu mag ñi andon ak Serigne Touba Cheikhul Khadim ci sen site internet murit point info seen mbokkum jullit mbokkum bi mu xeebu ñu gën koo xam ci oustaz imam ma sàmba sill doon leen ko defal ñu jukki woon ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba ñu baree baree baree bari di waxtaane lenn ci seenu dund donte mënuñoo waxtaane lépp muy jàmbaar yooyu nga xam ne ñoom la Sëriñ Tubaa seexaloon tudd leen seex ngir tasaare yoonu murit ngir tasaare lislaam ñu yóbbu leen woon ci gox yu fasantikoo ngir ñu wéyal liggéeyub Sëriñ tubaab bi kenn ku nekk gor ci ñoom gor ay dëkk yu bari mag ñooñu nga xam ne ñoom la Sëriñ Tuubaa waxoon ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine bu ngeen di roy roy leen saxaaba yi ñu defoon saxaaba yi nawle di leen roy ci diine di leen roy ci lépp di jéem a nja di jéem a yor njàmbaarook saxaaba ya ndax Sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadim dafa dond yonent bi alayhi salaatu wasalaam waahiran wa baatinan biir ak biti دي الفرد الجامع دي كوت يننتبه عليه الصلاه والسلام بوكو نتي ملوي فرد الجامع الك بلا بن وليو ام دار سي سونو بروم سي جيمم جوجو يجدني عند ملك مقتدر كل ولي للجنان يبتدر يجدني عند ملك مقتدر كل سعيد للجنان يبتدر mu xamle ne ëllëg lu wàlliwu gaaw gaaw gaaw ca sunu borom subhaanahu wa nga may fekk ma toog man Serigne Touba ëllëg lu wàlliw lu nit ku texe kum mën a doon loo bari bari pexe boo demee ci sunu borom nga may fekk ma toog xam ne ëllëg kum séddut doo am ndax loolu sunu borom subhaanahu wa la neex mu defal ko ko sëriñ tubaa moomu nag dond gi mu yon dond yonent bi biir ak biti loolee moo tax ñi sësoon ci moom tuddoon ay seex walla mag ñim yaral boppam mag ñooñu looloo taxit ñu dond saxaaba yi ñoomit biir ak biti ba looloo taxoon ñu tànn ca mag ñooñu kenn ku ñuy wax sëriñ xamsatu jaxate bu ñu ko doon tànnal kenn ci saxaaba yi dañ naan Seyduna Hamza lañu koy lañu koy xawaa a nirooleel donte saxaaba yi kenn mënu leen dab ci jëf ndax dañoo jëfe bërëb bu kenn mësta jëfe waaye ñoom lañu leen royloo mag ñi saxaaba yooyu la leen sëñ Tuubaa royloo woon ne leen topp leen saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine te ku ne xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na woon asxaab yi kenn nujum bi ayyihinna iqtadaytum ihtadaytum saxa sama saxaaba yi comme ay biddiw ku ngeen ci topp rek gindiku donte xadis bi am na ñu koy tadaif waaye loolu ñëruñu waaye maanaa bi moom ku ne xam ne lu wér la saxaaba yi nanguloon yonent bi ca jamonoom toppoon ko ñoom asxaabul kiram yooyu raw nañ te kenn melut ne ñoom kenn nag melut ne ñoom raw nañ te koo ci topp gindiku loolu lu wér la kon magi Serigne Touba yi nag koo ci topp ñoom gindiku ndax ñoom ñëpp koo kenn ku nekk ci ñoom mbooloo la defar laata mu fi jóge bi ko Serigne Touba seexale mbooloo la ko booleel mu ñu mu tarbiye mbooloo mooma defar leen àggale leen ci yàlla defaat leen ay seex comme ni leen Serigne Touba seexale woon moo tax ñu tànn kenn ca ñoom comme ni ma ko waxe woon muy Serigne Hamzatu doonoon kenn ci ñi àndoon ak sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu way juróomu góor mi ngi tudd sëriñ Muhammadu Aïchatu Jaxate ñu gën koo miine ci sëriñ Madu Asta Jaxate dëkkoon ca Daaru Mewnu ca Mbakol way juróomu jigéen itam mi ngi tudd soxna jang silla libaas ak feeñam jamono di tolloog 1882 ndax mag ñi nee ñu sëriñ Madu Asta sëriñ Daam Abdourahman Lo da doon xaritam di wëllëreem ba mas nañoo waxtaan bis mu ne ko ab sëriñ de lay wër bu mel nii ak nii sëriñ Daam ne ko bu ma la ko ñëkke gis wan la ko yow bo mu ko ñëkke gis nga wan mako lolu mbokk yi jangat biñ ci mëna jangat moy dañ ci dégg ne mag ñi ñu sonnoon lañ ci wër yalla ak wër nituk yalla ak fu mëna nekk dañ ko fekk ak ku mëna doon waye boba lañ ci dégg moy ñom dañoo xamone qualité yi ñi sëriñ qualité yi nga xam ne moom lañuy ñuy toppee nitu yàlla dañoo xàmmee woon nitu yàlla tamit loolu la leen ko mayoon mooy alliwa ji sori ak fonkoon jaamu yàlla jàng ak jaamu yàlla moo leen mayoon loola ba taxoon fu nitu yàlla nekk ñu xam ko fu nitu yàlla nekk ci kaw suuf daañ ko xeeñtu wëri ko loolu leen taxoon topp surafa yi nekkoon diggante Mauritanie ku mel ne Cheikh Sidiya Cheikh Saadu Abi ak ñu mel noona kon moo tax sëñ daam ne ko woon sëriñ bu mel nii ak nii wax koy qualité bu àgg ci yàlla bu safoo yàlla bu bëgg yàlla bu jeex ci boroomam takk ak yonent bi alayhi salaatu salaam moom laay wër boo ma ko njëkkee gis wax ma ko man it ma la ko njëkkee gis wax la ko ñoom ñaar loola lañ dëlante woon ndax ay wëllëre lañu woon ay xarit lañu woon sëñ Ndaam Abdourahmaan Lo ak woy juru sëriñ Amsatu Jaxate ba loolu jàllee ba sëriñ daam seetlu tegtal yooyu foofu li ma fi waxaat mooy wuuteeg sunu jamono nun nun sunu jamono ni mag ñi doon wëree sëriñ ak ñun ni ñuy wëree sëriñ dafa wuute léegi sunu jamono ñun wëratuñ sëriñ bu àgg ci yàlla wëratuñ sëriñ bu safoo yàlla waaye ndawi jamono ji legi ak ñoñ jamono ji legi li ñu doye sëriñ moy nit ñi dang ci gis ko xamne day am ba juroomi sëriñ sëriñ bo xamne ne ag ci yalla la ku mana jaamu yalla te sonu ca dañ koy am ber ko nele wuti sëriñu àdduna sëriñ boo bo ne problème aduna lañ koy doye muy buñ amé problème aduna lu melni police am ci ñom aw yoon wala ñom alal juñu lubal sering bawa moo gën kaman tek etabi état bi aja bulu jébbalu nañ ca kooku la problem, wax seeni problème mu dem ca kaw yéeg ak am sëriñum njabar jabar kat xam ne moo leen di defal ak dindil moo leen di jabaral di leen defal sering bawa dañ koy am jabarkat kat xam ne ko ko mana jabar njabar la man birum sahara la ñu di ko seeti fuñ toll dañ am am temit Sering bo xamne dan dañ ko topé kër kër sangam la samay wayjur la samay mam topone kër goga lay top kër sangam la samay mam bokkon man faaw ma am fop sëriñ ndax soko defut ñu jam la jeblu ngir lolo yooyu critère nak bokut ak yi ñu magni ñi doon tànneb sëriñ ñoom nga mané la wayjur suñu am jaxate ak sëñ dab abdourahman lo ñom bu àgg ci yalla am qualité yi sëñ tubaa wax ñoom moom lañ doon wër ba daje ci Serigne Touba sunu jamono nun comme ni ma la ko waxee juróomi sëriñ dañ koy am dañuy àgg ba ci juróomi sëriñ sëriñ boo xam ne jox nga ko sa bopp waaye mënoo paasee ak moom 5000 te boo yore boo bëggee ñaanlu da nga ko fa jéggi jàll ndax da nga ko da jébbalu ci moom ngir ndono am na sëriñ boo xam ne loo yor ci addiye ju doon moom nga koy jox. ngir mu ñaanal la sa ak sa borom ndax woor na la ku jégué yalla la ku sonn ci jaamu yalla la sëriñu aada bi nak woor na la mom ki xayna ak kër nga ko toppe motax nangu wo sonn ci ay mbiram sëriñu njabar bi nima ko waxe lu ñuy jabar rek ci mom ngay dem sëriñu problème bi état ak lu ci jëm soxla yu mel non mom nga koy diis kon motax tax njëbbal gi sel tut ñaka sel gi moo tax jublu ji ndigal ndigal la moy waral ndigal yi nga xamne euh talibi diko di lu señ bi def nga am ci xalaat ngir da nga xamne ki xolam xeyna dafa màcc jëm ci àdduna ndaxte bo demé ci imam Ghazali ci Ihya Ulumuddin daf nan xol ñaari buntu ñoo ci tijjiku ñaari fenêtre ben fenêtre bi mooy xol bu màccee jëm ci yàlla ba jeex ci yàlla takk beneen fenêtre bi mooy àdduna bu boobaa day feebul ci mbirum àdduna waaye xol bu jeexee ci bu àdduna bi boo xamee àdduna ba mu jeex takk day feebul ci wàllu yàlla ci wàllu yàlla faw ñaari fenêtre yooyu nag Ghazali nee na am na bu ci xol di màcc di jëm waaw day tijj ko jëm ci fenêtre bi nga xam ne yàlla képp a ko ñor bu booba faw côté àdduna bi da ci feebal wala mu am doole ci côté àdduna bi lool faible ci wàllu yàlla kon loola nag xëy na ñenn ñi ko xam moo tax hmm, sawaruñ ji benn qualité sëriñ bi nga xam ne dañ koo doon ci seeni maam ak seeni baay te kooku sëriñ bu nekk war nga caa jéem a bañ a bokk soo ca bokkoon tamit war nga koo dindil sa bopp lëggéeyal sa bopp lu tax mbooloo mi topp la waaye duñ la topp ngir sa baay wala ñu topp la ngir sa maam kon mag ñi noonu lañu nekke woon dañoo xamoon yàlla lool di xeeñtu yàlla ba fu ñu gis nitu yàlla koo xam ne wóor na ni ki ko àggu ci yàlla la ñu bàyyee ko seen bopp kon loolu jàngat la boo xam ne diggante mag ñi ni ñu daan tànne sëriñ ak jamono ji ndaw ñi ni ñu tànne sëriñ wuute gunu wuute dañoo wuute ndaxte am na ñoo xam dañuy tànn sëriñ ngir taar ba ngir serigne bu rafet la ñi tan serigne bu am kat-kat yu luxe dekk ci immeuble yu bax ne ci ah sering bu am classe bu lenyatan, tan mom la ñi tan waye duñ gis suuf yi ak dundam da ñagas lool ah mu sol may lu ci wayef lool di dund dund gu metti waye yalla kep ñor ko yalla jaral ko tour ay ranqooñ di dund dund goo xam ne ku gis kii da nga xam ne ku àgg ci yàlla la am na ñoo xam ne bëgguñu sëriñ booba bi ñu bëgg mooy bu àdduna lool boo xam ne hmm, dañuy mën a dem ak moo dem lenteeg moom ak dikk lenteeg moom mu leen di seeti xew wu ñu am mu teew ca problème yu ñu am mu réglé ko sëriñ boobu leen gënal sëriñ bu faru boo xam ne yàlla képp ko ñor donte nag loolu tekkiwul ne al faqr afdalu min al ghina laysa al faqr afdalu min al ghina bal al ghina ndaxte ghina sifatun min llahi subhanahu wa taala am kom melo la ci melo borom bi subhanahu wa taala waye day fekk sëriñ boba téye ko ci ciati baramam bagn ko téye ci xolam bagn ko ngep ci xolam aduna soko ko ci sa xol mu sonal la yonnati bi alayhi salatu wassalam ben sahaba da dan ñew ci mom ñaan loko alali aduna mu ñaanal ko ko ku melni anas ibnu malik ñew na ci yonnati ñaan loko alal يونس بن عاصم نيان الانس انس ابن مالك انس دون مليونير تي ولا ملياردير برون تي سونو جامانو جي نين انس دون بروم ألال بنين صحابه ديك تي موم نيان لوكو علال بن سالم خمال كو تؤدي الى الشكر خير من الكثير لا تطيق لا تطيق لا تي لا تطيقه لو te boko yoré alal ju néew boko yoré da nga mëna sant yalla da nga ci mëna dund dundal ci sax njabot nek manam te am xel mu dal mo gën lu bari lo xamné ne yoré do mëna sant yalla do am kàttanu sant borom bi subhanahu wa taala dal ne ko yoni sa sam ñaanal alal te ñaanalon nako Anas ibn Malik sahaba yi bari won ci ñu bari won alal lol Uthman ibn Affan abdurrahman ibn auf ak ñu bari lol ño xamne ne bari won nañ alal waye alal ji seen ciati loxo lañ ko ngëboon seen ciati baram lañ ko téewoon ngëbuwuñu ko won ci seen xol kon al qina ghina afdal min faqr am kom mo gën ñak waye tamit ñak go xamne ne day tax nit ki mëna sante yalla mo gën kom mo xamne ne day lejeel nit te neewana nit ku yalla joxum kom mu sante yalla lolou neewnu lol ci nit ñi ñàkk sant yàlla moo gën a bari ñi nga xam ne dañoo am koom ba pare di sant boo muy tut alal ji ak mbew la leen di dikkee ak yu mel noonu wala iyaadu billah kon mag ñi critères yooyu lañ daan tànne sëriñ sëriñ bu àgg ci yàlla tegu ca yoon wa yàlla képp ñor ko dara ñoru ko lu dul yàlla ah feebul ci mbirum àdduna lool yoonam newu ca ah wala bu ca yoonam nekkee tamit na mu koy lijjantee du ca xuus ba àdduna di nangu di di di di nangu itteem jëpp di jël itteem jëpp déedéet ñooñee mag ñi ci yooyu lañ daan tànne sëriñ wuuteeg sunu jamono nun ñi ëpp ci ñun du ñu tànne sëriñ noonu te ab sëriñ akub taalibe bokk na ci àq yi sëriñ ameelub taalibe mooy taxawu ko ci bàmmeel ak musal ko ci mbugalum sawara muy ëllëg bu ñu dajeek borom bi subhaanahu wa taala ba loolu jàllee ba sëriñ ndaam seetlu tegtal yooyu sëriñ Modou Asta waxoon ci sëriñ Touba benn bis mu ñëw mbaakol jaar ci sëriñ Modou Asta ngoonuk alxemes moom sëriñ Abdourahmane loo ñëw mbaakol jaar ci sëriñ Modou Asta ngoonuk alxemes Fanan ak mom wax ko tegtal ya mu gis ci sëriñ bi ndax nee woon na ko boo mel nii ni nii wax ko ay qualité nag ma wax mu wax ko qualité yi gis ci sëriñ Madu Asta ne ko soxna jang sill di way juru suñu am sutu jaxate ne ko soxna jang sill dafa am fu mu toll waaye bu dul damay daldi di ak yow ñu dem ci serigne bobu nga gis muy serigne touba bo nu xeye di suba ak aljuma soxna jang yalla muccel ko serigne Madu Asta daldi wax serigne ndam ne ko li moy sama ngant moté ñu mëna and ci serigne touba wax nañu ne sax ñom ñaar dañoo waxtaan ci turwa ndax sëriñ Madou da koo bëggoon a da ko bëggoona a moomale turwa dafa bëggoon a tudde da ko bëggoon a moomale turwa waaye sëriñ daam ne ko nañ ko tudde sunu sëriñ daara bi ñu doon jàngal alquran muy sëriñ masata binta ba sëriñ daam dellusee wax ko sëriñ tubaa radiallahu anhu sëriñ bi ne ko ganam googu ci yan waxtu la feñ mu ne ko aljuma ci yor yor ci waxtu sangam mu ko kon ganam gogo moy tawup yon wi moy tawup yon wi waxna ñu ne ci waxtu wowo la jot ndigalu rabbi bil himmati wala turabbihim bid dars faqat bi seigne Daam rahman lo diké wax ko seigne touba laaj ko gan gi muy sëriñ Amsatu Jaxate ci wan waxtu la feñ ci wan waxtu la gane jamono seigne Daam né ko aljuma ci waxtu sanggam, ak sangam ci yor yor ci waxtu sangam wax ko wax waxtu wa seigne touba xamal ko né ko Jaxate momu kon moy tawu yoon wi ndax waxtu wo nga wax aljuma ci waxtu yor yor wo ci la jot ndigalul rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bi dars faqat ci lama yon sa sam ne ma yaral sa ñoñ ñi ci himma te bu len yar ci njangum kese kérok la serigne touba tas daraja ja ne ku fi jang kep indi won kep kese wutil foko defé légui léegi tuma kese yam ca waaye damay tarbiya ci himma moy boole jàngale ak yare jàngale ak yare jàngale ba nga ne ar yar la ba nga ne nër keroog la daara ja tas ñenn ña ña nga xam ne himma lu sëriñ tubaa dugg rek doy na leen ñooña ñoo toog ca daara ja bis boobee la sëriñ Amsatu Jaxate gane jamono kon sëriñ Amsatu Jaxate ak gane jamonoom moo tolloog juddug yoonu murit juddug yoonu murit juddugam juddu ca Mbàkke Kajoor moo tolloog ganeek jamono sëriñ Hamzatu Jaxate moo tax sëriñ Tuubaa ne sëriñ Xamsatu mooy taawu yoon wi mooy taawu yoonu murit kon ak feeñam jamono moom sëriñ Xamsatu moo tollook feeñu yoon wi ak ñëwam ci sëriñ bi nag ñëwam ci sëriñ Tuubaa mi ngi sababoo ci ñëwugu sëriñ Madu Asta juróom ñëwoon ci sëriñ bi ziyaare ko sëriñ bi ne ko doomi libaas ja kam fa am nu mu tollu mu ne ko alliwam de mi ngi mi ngi sori ndax wàcc na bay toppaat sëriñ bi ne ko booy ñëwaat nanga ko àndaale ba sëriñ ma du assa delloo waajaat ñëwaat waneen yoon àndaale àndaale ko àndaale sëriñ xamsatu sëriñ bi ne ko li naka nga tudd mu ne ko masata mazata mu ne ko masata du tur waxal xamsatu kon sëriñ tubaa moo soppil sëriñ xamsatu joxate aw turam ndax sëriñ xamsatu mazata la tuddoon mooy sëñ daara bi jàngal woyu juróom moom la ko woyu juram tudde woon sëñ daara bi ko jàngal moo ak sëñ daam raxmaan loo moom la ko tudde woon sëñ tubaa soppi ko ne ko waxal xamsatu Bamu ganale ganalee Madu Asta mom sëriñ coba, ba toll ci war ko yeewi la ko wax ne boo ko fi bàyyi ñu defaral la ko dana bah, boo fi bàyyi won suñu am sëtu mi ñu defaral la ko dana bah. sëriñ Madu Asta ne ko dama jëllale jox la ko waaye xàqi njuréel ji doxoon sama digganteeg moom sax joxaale naa la ko xàqi njuréel ji doxoon sama digganteeg moom sax joxaale naa la ko bis nekk tey booleetu booleetuma ko ci samay doom ci ñi nga xam ne maa leen jur jébbal naa la lu ma amati ci ak njaboot bés ko tey ba ba àddinay tukki nga xam ne mbooleem keroog la ko jébbal njabootam gépp Sering bi nek ak Mom ab dir mom sëriñ am sëtu djel ko moo Omar Fall ak sering Mor ak ñeneen yobulen, cumbulen, buso ngir ñu bind fa kabil ngir ñu bind fa kabil ndax boobu wattu nañ alquran gannaaw ba mu ñëwaat sëriñ bi boole kook maam Thierno Ibrahima Faati ba ba ni sëriñ bi ñibbisee ci géej gi jël ko taf ko ci boppam mu di ko jàngaleel ak di ko bindal ba ni mu ko joxe ndigalal ñëw Tuubaa jox sëtu ndigalal ñëw Tuubaa ñëw tubaa dundal pàkk bi muy pàkk Touba daldi koy rëddal ñetti rëdd yu kuttumbal maanaa yu ron ne ko dëkkeel fii ci digg bi rëdd ñaareel wi mooy say tool rëdd ñetteel wi mu ne ko dëkk bu ne la ko wër waruñu koo dëkke wëruñu koo bay dañu ko war a bàyyi mu koy féexal maanaam muy féexal dëkk ba maanaam muy féexal dëkk ba yore naa tànge ja dëkk boo gis am na ca parti boo xam ne dañ ko war a bàyyi mu féex ñu di ko ñu di ko maanaam mu yore naataange dëkk ba ci loolu la nekk ba sëriñ bi ñibb si Tuuba mu ànd ak sëriñ Mouhamadul Moustapha ci loolu ak sëriñ Muhammadul Faadal ba ci njëlbeenug xilaaf ak sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ci la làqu wuy ji boroomam bisub dibéer di fukki fan ak benn ci tamxarit tolloog atum 1969 ci atum tubaab yàlla nanu nu ko yàlla dolli yërmande ak ngërëm تبارك بشيخنا الخديم رضي الله عنهما وأرضاهما آمين اللهم سل على سيدنا محمد وآله وصحبه وخير قديمه وأمته وسلم تسليما بوكي جلدي بوكي تالبي دي سانتك غرم دي وخني وخجي لوتي جوب ci kattanu borom bi subhanahu wa ta'ala la ak ndimbalul radiallahu taala anhu ak mag ñi taxoon ñuy def lii muy ku mel ne sëriñ Amsatu waaye lu dëng ci kàddu yi te jubut ci sunu gàttu gëstu la ak sunu ñàkk xam fasaxa di ko jéggalu mboolem jullit ñi di ko jéggalu murit yi di ko jéggalu mboolem njabootuk sëriñ Xamsatu lu ci njuumte ak lu ci ak gàttañ lu ñu ngi leen koy jéggalu bu baax a baax di wax ne dara du sunu ittee lu dul jéem a feeñal mag ñi nëbbutuñ sax feeñ nañ ba mel jant waaye jéem a xamle lenn ci seenug dund ba ñi leen xamu doon xam leen seenu message mën a continuer di jàll ba sunu borom di taxañ dëndam bi loolu rek moo ci sunu itte di ci sunu yéene di ñaan sunu borom taas ñu ci seen barke te dolli seeni leer bu baax a baax fa nu tëdd te fay leen seenu liggéey barakat Cheikhul Khadim di nuyu Serigne Mountakha Jaxate di ko sant ak gërëm di ko ñaanal tawféex ak mucc ak wér-gi-yaram ak mboolem njabootuk Serigne Hamzatu Jaxate ku mel ne Serigne Omar Jaxate ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal gudd fan lool ak wér yaram ndax sagub yoon wi lañ kër lañ goo xam ne njaboot lañ goo xam ne mboolem li Serigne Touba bëggoon ci ñoom Amnaku, na ko mën naa ne am tek ko ndax koo ci gis rek ma nga ci yoonu mustaqim amu ci kenn ku wàcc yoonu siraatal mustaqim muy njaboot njabootug sëriñ hamzudu jaxate kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf